ku nga xam ne day fay day warul tal day barki demi bi may baye seigne Bay sa Paris dafa ni ma waxoon naa xalif général des Mourides que su inauguration bi ñewé na woote jam woote na jam Abdoulaye Wade deuk Macky Sall joxante nañu loxo lendemain genn nañu Khalifa Sall té je voudrais ici saluer le courage la constance le sens du dépassement le sens de transcendance de Khalifa Sall bu nga xam ne bi dañ ko tooñ waaye malgré tooñ boobu yoqatul benn yoon man je me suis je suis fier d'avoir été à ses côtés ndax yàlla loolu la wax yalla nena, na Cheikh daf naan yalla bëggul ku togn waaye ki mu gën bañ moy ki and ak ki togn. Té bi muy am c'était dans le comité directeur de Benno Bokk Yaakaar et j'ai exprimé une position yàlla dafa ni laa tarkunu ila lazina zalamu fatamassakumu naar bu leen ànd bu leen tooñ bu leen ànd ak kuy togn ndax yawmal qiyam sumde mbugal ki togn yen ñi ànd ak moom danaa la si bolé waaw muni afdalu jihad kalimatul xaq inda sultaan wa jaay bi jair nee na jihaad bi gën metti moy jihad ko nga xamni ki waaw dafa jeng di kilifa nga ni ko ee eh, mu geestu na nga ni je voudrais donc avant toute chose saluer cette réalisation bu nga xam bi Khalifa amna na ndam ndax ku ñu tej rëbës jeng la sàcc nga génn ken wax lo hub satché, hub satché, mais on t'a porté au pinacle Sénégal yëpp génn di kontaan di la tag si sa si si si sa dignité et si ce sens de transcendance kooku il faut que bala may wax dara ma wax loolu tey jataay bi moom lañ ko dédié parce que c'est une grande réalisation